le président de l'Assemblée nationale, je, profite de cette euh, turbine pour vous, féliciter. Vous, êtes un des, présidents qui est mieux élu de l'Assemblée nationale. C'est vraiment à cause de votre esprit d'ouverture et de votre euh, vraiment amitié avec tous les députés. Je vous félicite encore une fois. je salue le ministre de l'Environnement, je salue le ministre des Finances, du Budget et le ministre du Travail. Monsieur le ministre de l'Environnement, mon département Kébémer laa jóge euh, tey sama allocution dama koy exactement ci département Kébémer notamment ci la zone de monsieur le ministre quand la zone de bi culture maraîchère mon femme. am dafa am loo moi je me demande ça. est-ce que monsieur le ministre yow ku mel ni yow par exemple di nga jékki-jékki dem dugg ci biir département Kébémer xool la am surtout si zone ñaay bi parce que parce que pas comprendre que xale yi bu ñu fexee ba aménager seen benn tool euh, def fa benn forage wala benn teen on sait pas mais en tout cas dina am ndox ñu def fa goutte à sa ay service notamment eaux et forêts dañuy ñëw arrêté leen non seulement duñ ñëw arrêté liggéey boobu ñuy liggéey mais dañ leen di defal amende six cent mille loolu bëggoon nañ xam si ban texte la la basé wu ak si naka lañ koy defee xam nga nu moi je dis si je suis d' accord ah pour que ñu exploiter sous-sol bi man d' accord naa si parce que richesse la il faut ñu exploiter ko mais monsieur le ministre tamit euh, code de l' euh, code de l' environnement yéen yéen ko yéen a ko yéen a ko jàllale ñëw fi assemblée nationale ñu voté ko am na ay normes yoo xam ne code de l' environnement dafa ko war a xool la responsabilité sociétale lu mel ni Eramet nga xamné ne moy exploiter euh zircon bi ci côté boobu mais responsabilité sociétale boobu il faut ñu xol ko sur la table il faut que population yi aussi buñ leen délé ci nga xamné ne fofu lañ nekkoon yor ko d'ici d'ici dundu d'ici bay mais buñ leen fay jëlé di leen yobbu mais ñu yobbu leen ci ay conditions de vie yu meilleures mais mënuñu leen a fekk ci seen momel jël leen fa toxal leen ba paré yobbu leen fo xamné duñ ci gis seen bopp monsieur le ministre ça il va falloir vraiment ñu xol ko surtout nak affaire bay boobu parce que xalé yi.

Nous parce que avec ça on ne peut pas ne pas se demander pourquoi Khaled yi je vous remercie.